euh, après le placement su sous mandat de dépôt euh, de Ousmane Sonko ñu gis un regain d'activité euh, alors que au mois de mai da nga gelé woon euh, ces tes activités au niveau de Yewwi après les investitures ndax euh, li la niñ ko defee neexul la woon ngeen nekkoon ay leaders yéen on vous a relégué au, au, aux dernières places vous étiez 19e sur la liste nationale nga gelé say activités vous êtes revenu euh, en 2023 mais qu'est-ce qui peut expliquer ce regain d'activité politique euh, bi nga am léegi alors que man foogoon naa ne sax bàyyi nga yeewi pare nga ci politique bi. xam nga euh, dama am des rapports avec la politique yi ma gënal pour dire je, je n'apprécie pas beaucoup ni ñuy doxalee politique dans mon pays. c'est que il y a que l'activité politique qui compte euh, et vous savez très bien de quoi je parle parce que vous êtes aussi entrepreneur euh, dafay baax aussi euh, mu am activité politique su su ko laajee mais quand même mu am nit ki am liggéeyam jël un moment pour servir son pays en créant de la valeur mais mënuñu nekk rek di di wax malheureusement je vois beaucoup les plateaux <laughs> donc je suis en train d'en faire ça, ça parle beaucoup beaucoup et très peu d'action et les Sénégalais nous en veulent très souvent en disant euh, amul kenn ci ñoom euh, koo xam ni en réalité mi ngi participer de façon active de façon réelle à à à la transformation donc économique du pays et donc ça euh, heureusement très tôt j'ai été entrepreneur je me suis investi dans l'éducation et phase bi ngay wax nii ni mu guddee woon c'est parce que je suis j'étais en brousse dem euh, à Kédougou euh, pendant presque sept huit mois pour un projet qui s'appelle Kédougou Bioparc dans la nature di bay Euh, aussi j'étais dans l'écotourisme di ci liggéey et mënuma koon booleeg yu bëri ça c'était une explication l'autre explication c'est que effectivement il y avait un moment au sein de Yewwi il y avait beaucoup de remous ay difficultés yoo xam ne taxoon na Euh, mu jafe woon pour man ma porter la parole donc de la coalition parce que balaa ngay mën a wax euh, balaa ngay mën a défendre euh, fekk en fait nga nekk en phase donc avec li ci xew ak li ci am donc j'avais beaucoup de problèmes et aujourd'hui je pense que am na yenn difficulté yoo xam ni vivre nañ ko on peut aisément comprendre li tax man wala ñenn ñi sax amoon ci problème mais loolu c'est le passé j'ai toujours cru en Yewwi gëm naa ni c'était un beau projet pour la démocratie sénégalaise euh, gëm naa ni c'était des hommes de valeur c'est encore des hommes de valeur yi ci nekk moo tax j'ai pas voulu démissionner donc c'était geler simplement mes activités dans le domaine de la communication. Alors vous êtes de retour mais les choses n'ont pas changé depuis mars euh, dégelé nga waat nga euh, mais travers yi nga gisoon ci Yewwi Askan Wi ba geler say activités. est-ce que gënul yokk parce que aujourd'hui euh, vous avez Khalifa Sall qui fut conférence euh, président de la conférence des leaders euh, bien qu'il a qu'il a qu'il a quitté euh, son parti est marginalisé euh, ñii far fii ñii far fële Euh, est-ce que li nga fi fekkaat gënul yées li taxoon nga bàyyi parce que li taxoon nga bàyyi euh, c'était le non-respect de la charte ak euh, manque de démocratie interne bi ñu wone ci choix wu investiture yi. très sincèrement je suis beaucoup plus à l'aise tey jii. pourquoi parce que. Euh, Khalifa Sall n'est plus dedans euh, ou, Non, ou je je veux pas personnaliser le débat, c'est pas par rapport à Khalifa. euh, ou à quelqu'un d'autre. Mais en réalité, euh, je, trouve que, la culture de notre organisation, euh, sous, nos, sous nos euh, waxtaan yi ñuy wax jubóo bi am suñu biir euh, volonté bi ñu am pour continuer ensemble euh, tey la gën a fës tey la gën a nekk. mais ban jubóo moo am ci seen biir. moom lay dudd ci biir. Euh, ah. je, je le donc dis. le problème c'était Khalifa Sall. Euh, je ne dis pas ça. Euh, non je... problème peut-être moo doon Khalifa mm, mm, Sall. Mm, non mën nga ko gisee tamit neneen mooy mën nga gis ni. parce que yow ci investiture yi moom nga moom nga moom moom joxo ñoon nga ko joxoon. ñoon nga ko du ma du ma généralement yu mel noonu du ma tudd nit. Euh, j'ai indexé de façon générale mais mon problème donc c'est pas forcément Khalifa Sall mais c'est qu'il y a eu une évolution. Euh, y a eu des erreurs et c'est normal hein, dans un compagnonnage ñoo xam ni bokk ay parti bokk ay gis-gis ngeen toog war a waxtaan ci élection municipale locale plutôt ak législative bi c'est pas évident donc en ce moment-là manque d'expérience ñàkk xamante bi euh, mën na tax en fait que traitement au problème bi ngeen bañ ko mën ko réussir tout de suite et donc au fur à mesure les gens apprennent et aujourd'hui je pense que il y a une maturité euh, am na benn compréhension des enjeux am na tamit benn habitude boo xam ne am nañ ko qui fait que c'est beaucoup plus solide contrairement à ce que j'entends d'ailleurs dans la presse euh, en pensant ou en prédisant donc l'éclatement de Yewwi c'est tout le contraire c'est euh, une équipe extraordinaire qui se retrouve beaucoup plus souvent euh, qui communique beaucoup plus souvent bien sûr il y a des ambitions par-ci par-là mais ces ambitions-là c'était prévu et même charte boo xam ne bindoon nañ ko Euh, prévoir on na ko ni euh, pour l'élection présidentielle chacun pouvait aller de son bord l'essentiel c'est qu'on garde cette intelligence là euh, et, et, et qu'on puisse se retrouver parfois affaire bi day mel ni genre euh, genre genre ñett c'est-à-dire vous savez que cette coalition là a atteint euh, ses limites vous savez que durée de vie am jeex na Mais puisque tout le monde a décrété euh, la fin de cette coalition, vous vous accrochez. Parce non, que non, je... euh, vendredi, <laughs> samedi, à l'Assemblée nationale, euh, c'est PASTEF et Tahaou Dakar qui se crêpaient le, le, le chignon. Yewi a toujours déclaré Urbi Orbi que l'Imoubogoumoy, Khalifa Sall, ne participer à l'élection. On ne comprend pas que la procédure soit enclenchée, qu'elle soit matérialisée à l'Assemblée nationale samedi et que PASTEF s'y oppose, PASTEF sax retardel na euh, procédure bi. On ne comprend pas que pour une coalition que vous dites Euh, bien important euh, que l'un des membres fondateurs et membre essentiel muy Taxawu Dakar soit marginalisé ne soit plus convoqué aux, aux, aux conférences de, de de presse on ne comprend pas que Yewwi le Yewwi qui faisait rêver et qui a fait adhérer les Sénégalais au local et aux législatives on n'a plus ce Yewwi là léegi yéen seen wax yëpp c'est injustice Euh, libération des détenus politiques libération de Ousmane Sonko amatu leen sax feuille de route wala ah wala wala agenda mais mun xam nga li ma neex yow ci sa ci sa façon poser <laughs> question yi mooy da ngay def ay affirmation dugal nit ki ci ruq bon et puis voilà mais c'est très bien on, on comprend le jeu Euh, non ça se passe pas comme ça je, je confirme effectivement qu'il y a un problème il y a un problème entre Yewwi et un euh, de ses membres fondateurs mu nekk Khalifa ça nañ ko jël seppi ko parce un problème c'est mais en dehors de ça je dis Yewwi Askan mais mais benn tànk bi bu dee bu génnee chaise bi day kii. non du tout. Euh, euh c'est ce sont les deux pieds même. non du tout xam nga euh, je veux rester élégant euh, Yewwi Askan Wi c'était un espoir. Et, et, et quand même euh, Khalifa bien sûr est un élément important de Yewwi Askan Wi. Euh, mais euh, il y, y, y, a quand même de très grands responsables au sein de Yewwi. Responsables par le nombre, responsables par la qualité de ce qu'ils représentent, mais il y a aussi euh, des, des, des, responsables qui inspirent et, et, qui ont beaucoup apporté à la démocratie sénégalaise. Euh, Koumelni euh, Ousmane Sonko, je pense qu'il a été une locomotive donc de cette de ce de cette coalition Yewwi Askan Wi euh, y d'autres je veux pas énumérer mais bàyyi rek ma yem ci moom pour ne ni euh, au sein de Yewwi en fait il y a encore des gens de valeur de qualité yoo xam ni am nañu cette communion donc avec le Sénégal et encore une fois c'est pas le nombre qui est important et parfois moi-même parfois c'était cette attitude-là que j'adoptais mooy jéem a rassembler di négocier bon c'est un peu ma philosophie ma façon de voir les choses mais dans la vie euh, il faut trancher loo xam ne mënul dem bul avancer torop donc dans le cas de euh, Khalifa ak situation bi ñu amoon en tout cas par rapport à ce point précis du dialogue je pense que décision bi moo gënoon pour que au moins Yewwi Askan Wi continuer décision bonne mooy bi ñu def nii. mooy la coalition Yewwi Askan Wi continuer sans lui en ce moment. Ah, donc génn ngeen Khalifa ci coalition non euh, ngeen ko suspendre. Euh, c'est une suspension de la a jamais eu une décision d'exclusion. Ah. Euh, formelle et et et et je suis encore une fois. en train de préciser quelque chose de très clair da may may rek ma ma leeral bu baax a baax. Ah, donc donc waaw ma leeral bu baax a baax donc Khalifa dafa nekkoon membre coalition Yewwi Askan Wi sur un point précis mooy la question du dialogue ñu am problème déggoowuñu ci mu indi situation boo xam ne tey jii mooy y un froid total et puis même disons Khalifa bokkatul te kenn tamit oowatu ko ci ndajewu Yewwi Askan Wi ça c'est clair et c'est constant et je dis honnêtement moo gën moo gën pour Yewwi Askan Wi en ce moment parce que ça permet de libérer Yewwi Askan Wi mu nekk ci axe boo xam ni moo doon axe am ay principe am am xalifa aussi il est libre am logique di ko dérouler donc ça permet aujourd'hui d'avoir vraiment beaucoup plus d'énergie à libérer mais encore une fois kenn génn ci wala ñenn génn ci taxul en fait la puissance ak li yeewu askan wi donc di di di incarner euh, dara wàññeeku ci et ma jeexalee fenn la charte pourquoi ñu bëgg gëmloo Sénégalais yi ne en fait que jeex na Yewwi c'est pas possible. mais dans les faits. les non, actes politiques de la fondation s'étrippent à l'assemblée de la de la coalition mm-hmm. s'étrippent à l'assemblée ana coalition mm-hmm. foofu. non mais euh, tu reviens au même point de départ c'est-à-dire et la coalition Yewwi Askan Wi. donc non leur député. oui que le point de départ c'est entre donc Khalifa euh, Taxawu Sénégal et la coalition Yewwi Askan Wi et puis les conséquences c'est ce que nous sommes en train de vivre. euh, dans les discours le comportement à l'Assemblée nationale et dans autre chose loolu yëpp c'est un seul point c'est-à-dire le problème de Taxawu Sénégal et de la coalition Yewwi Askan Wi en dehors de ça tous les acteurs qui sont au sein de Yewwi Askan Wi ont toujours euh, le respect pour cette charte-là ni ñuy gisee mbir bi ak Sénégal bi ak les doléances ak les problèmes pour lesquels nous devons nous battre reste totalement entier et li may wax encore une fois euh, les gens ne sont pas dupes pour les élections locales on pouvait y aller ensemble pour les législatives aussi mënoon nañu demandoo ensemble pour la la présidentielle il était évident qu'on ne pouvait pas aller ensemble forcément avoir une candidature unique et on a prévu cela anticipé en responsable en disant ku nekk mën nga euh, nekk candidat mais quand même soyons intelligents mooy nañu maintenir donc euh, euh cette plateforme pour nous donner la possibilité puisque déjà li ñu miin euh, lu ñu am lu ñu gis lu ñu bokk gis-gis pour que après ñu mën a joxante loxo et aller beaucoup plus vite donc aujourd'hui ci posture boobu la ñu nekk euh, nous sommes bien portants alhamdulilah mm-hmm. et euh, ce que nous sommes en train de vivre nous a davantage rapprochés je vous parle sincèrement